وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلين نيو يلين زيارة يلين بال حقة يلين بال لنيان يالا سبحانه وتعالى ولن يجغل ني يسر يلين دوكيل شوير وين ينك خان موي سنگ ويري واي يلين دوكيل يتي بس بيغا خان موي سنگ بسي موي بسو الجمعة دفاي سنو خطبة تاي dafa am ñaari laaj yoo xam ne da koy laaj laaj yu ci nekk day am yëpp ñetti laaj laaj bi mooy lan mooy dafa am façon koor woo xam ni moo am mu lay laaj yow ban koor ci ñetti koor yooyu ngay def beneen bi muy am dafa am ñetti taxawaay yoo xam ni am na ci weeru koor mu lay laaj yow ban taxawaay nga yor ci ñetti taxawaay yooyu xam ni weeru koor mu ne dafa am ñetti façon woor yoo xam ne ñoo am dafa am benn koor bu njëkk bi kii woor dafay jàpp ni daal koor gi daal lu diis la ci moom ak coono la koy jural foo ko fekk moom dafay jàmbat rek آه، خيف دي تاي داما خيف لول ولا تاي دما مر لول تاي دافا تانغ لول تاي دافا سد لول هر بي دافا ييخا جوت نانغام نانغام موم دال كور دي دال داكوي ديف فار نياك بخه موتاخ فوكو فكي داي جامبات رك ناخ ياو تي والو بوبو nga bokk wala det nena bu fekke ni ci walu bobu nga bokk xamal ni yimu bu bari rëcc na la ndax yow mom xamal ni da ngay wor par ñak pexe rek bu fekkoon ni aman ga lila gënal do wor bu fekkoon ni dégguloo li nga xamni mom lañ wax ni mom lañuy tek ci ay daan ko xamni worul bu fekkoon ni yow yalla daan dafa ñew wor mu def ko lo xamni nekkul lo xamni force la dañ ne la tan leen rek waye bu ngeen ko defé di ngeen ci ab yiw ju bari jo xamni dana leen jëriñ fi ci aduna jëriñ leen ci waaye bu ngeen ko deful nag dara du leen ci fekk maanaam yow bu fekkoon ne lool la yàlla wax kon yow doo woor waaye nag comme loolu amul dafa bokk ci yi nga xam ni ci ponk lislaam yi la bokk ñu ne bu fekkee ni defuloo ko ay daan yu métti moo la cay fekk mu ko defee nga ni naa woor rek comme moo fi sës woor ngir sës fi nee boo ko defee xamal ni liñ ci wax ci ay ngëneel yëpp dañ naan loo ci jàng ci alquran dañ koy ful ful goo xam ni kenn xamul nu mu toll xam ne bu nañ naan boo ci génnee da ngay set wicc ci ay bàkkaar comme ni la sa nday jure woon yooyu yëpp xamal ni yow woore boo wooree ba génn yooyu yëpp amoo ci dara ndax woor gi defaloo ko ak sa bànneex ak ngir topp ndigalu yàlla waaye ngir it jëfe ko ngir am cofeel ci sa borom ñaareel bi mooy ki nga xam ni moom day woor bu koor gi ñëwee dana dogu dana am pastef dana fexé lum bon bon dana jéxal alquran waye mu ca nafil yi nga xamné ñu ko doon wax ci suñu bind bi passé muy julli dana koy joxé kem talay katanam waye dana saraxé dana sax jokk mbokk amana. waye and ak lool lepp mom nak musul banexu ci tafkay jamu yalla santiru ko ci bopam li muy def mu koy def nii rek waaye dafa mel ni aada ci moom aada dafa mel ni aada ci moom maanaam julli gi jullik aadala la woor gi wooru aada la jàng alquran di jàng alquran aada amul settantal amul benn coppeeku goo xam ne def na ko ci yow jokko mbokk gi da koy def ngir aada rek maanaam li ngay def yow sentiroo ci benn jaamu yàlla ne na bu fekkee ni kooku ci kuréel boobu la bokk nee na kooku mooy ki nga xam ni bu jógee ci weeru koor li ci ëpp rek daanaka dafay dellu ci xaal ba mu nekkoon maanaam day dellu comme ni nga xam ne noonu la meloon avant weeru koor di ñëw xam ni weeru koor dafa nekk weer woo xam ni dañ ciy profité ngir soppi lu bari ci suñuy jikko ak suñu digganteeg suñu borom ak suñu digganteeg nit ñi waaye nga gis ni bu fekkee ni ci wàll wii la bokk moom bu jugee ci weeru koor bi rek daanaka day delluwaat ci leen gaaw moo tane ku njëkk gi waaye koor gi bari andi lu ko njëriñ bu bari ñetteel bi mooy ki nga xam ne nag mooy bu ñuy gërëm bi nag mooy bu baax bi mooy ki nga xam ne moom woor na waaye amee yegg na ci raaya ba ma yegg na ci cappaandaw ga ndax lan koor fi nga xam ni mooy cappaandaw la mooy ak taqwa mooy am ak ragal yàlla moom amee réponse nag kooku pour mu am ko dafay boole ñaari njëkk yi benn bi mooy day woor waaye koor gi nekkul koor ñàkk pexe ñaareel bi dana woor waaye dina jàng alquran dana saraxe dana jokk mbokk dana def ay nawafil dina def dikr mboolem liñ ci santaane yëpp dara ko def waaye nag loolu bu koy def da ci ànd ak di ci yëg ak bànneex nag du ko def nii rek comme aada rek waaye da koy def bi caqamtiku li nga xam ne moo ci nekk ci caf ga loolu nag li la koy may mooy bàyyi xel li ngay def bu fekkee ni julli la walla bu fekkee ni jàng alquran la te lépp looy def nga bàyyi ci xel yàlla boo ci bàyyee xel yàlla jàpp ni lii ak jaamu yàlla la rek boo ko defee da nga dem ba ba ci kanam dangay sentir li ngay def danga ci ciy sentir ak bonheur bonheur boo xam ni nit mënu koo melal ki koy dund rek moo koy xam kon ñetti koor yooyu ñoo am moo lay laaj yow mbokk jullit mi ban ci kuréel yi nga bokk ndax dangaa bokk ci ñi nga xam ni dañuy woor ngir ñàkk pexe rek bu fekkee ni ca nga bokk tey la ñu am juróom-ñeenti fan góorgóorlu nga dellu ginnaaw xam ni loolu du la amal njëriñ fii du la amal njëriñ ëllëg yaa ngi koy def ngir xiifal ak teg sa bopp coono bu fekkee ni ci ñaareelu kuréel bi nga bokk yaa ngi woor yaa ngi julli yaa ngi jàng alquran yaa ngi joxe yaa ngi jokk mbokk waaye loolu ngay def yow daanaka jàppee woo ko jaamu yàlla dafa mel ni ci yow aada rek bu fekkee ni ci kuréel googu nga bokk la nga doon def baax na loolu waaye na tey dolli nag dolli gi lan mooy jublul ci li ngay def ni jaamu yàlla la bu fekkee ne ci ñetteel bi nga nekk nag yow moom lii sa warugar mooy nga fexe góorgóorlu ba loolu nga tënku ca fexe ba bu balaa koor gee jeex doo ci génn mu nekk loo xam ne lu jafe la nag xam ne moom dafa laaj saa su ne ngay saytu sa bokk di càmbar sa bopp fan nga taxawee kon ñetti koor yooyu moo am bu ko defee ñu ñëw ci ñetti taxawaay yi nga xam ni am na ci jullit bi ci weeru koor dafa am lu ñu tuddee sawmul aam mooy koor goo xam ni ñun ñoo ko bokk doo def ñun ñëpp ñoo ci yem sawmul mooy lan mooy ki nga xam ni fajar jot na bàyyi na lekk bàyyi na naan bàyyi na ànd ak soxnaam wala bàyyi na ànd ak gorom këram bu dee jigéen moytu na it lépp li nga xam ni dafay yàqu koor xam ni li yàqu koor am na loo xam ne léegi-léegi nit dana ko def te du ko tey lu mel ni muy jàppu wala muy sangu wala muy sëlmu léegi-léegi ndox mi daal di rëcc daal di jàll nga xam ni kooku dana yàqu kooram day weer bu deewee da koy fay weer bu jeexee da koy fay waaye it mu sew-sew bu ci ne ndax nga gis léeg-léeg koo xam ne dafay juum loolu daal ko mu ne comme yàgg-yàgg dama koy fay rek kon koy jarul ma yeggali naa continuer lekk ci bis bi rek weer bi jeexee ma fay bu fekkee ni dof dof lu nga ba def loolu xamal ni nag ak kafaara moo la ciy fekk nag ndax lekk ci bëccëgu weeru koor dafa xaraam donte ni juum nga ba dog da ngay jàpp bis boobu ba heure dog jot nga daal di dog weer bi jeexee nga daal li koy fay yàlla ku bëri yéen mën na la mën na laa defal yoolu bis boobu du la raw waaye li nga xam ne mooy àtte bi mooy lool amna benen bo xamne day yak koor yi te léegi-léegi ak tayef lay doon niki ki nga xamni ni ca weeru koor day and ak soxnam ñuy fo ba ak mani yu genné ca koku day yak kooram ma xam ko wala jigen ji nga da ni ba ca weeru koor fa gis règle fa gis mbaxam koku du bokk ki nga xamni ni fa juumoon dok te tayu ko kooku day continuer japp mais bu jigéen ji nga xam ne moom dafa gis mbaaxam ci dëkk bëccëg weeru koor kooku moom koor googu dakkatul sax yëggali da koy dagg da koy arrêté soppuñ ci moom muy jàpp gis nga kon nga xam ne sawmul aam buy am dinañ bàyyi lekk dinañ bàyyi naan dinañ bàyyi lépp loo xam ne dafay yàq koor moo xam lu ñu tay la wala lu ñu tayul moo xam lu ñu xam la wala lu ñu xamul bokk da ci yi nga xam ne léeg dañ koy def te xamuñu ko xamaa amaana xanaa boo dajee ko ko xam mu gindi la mooy li ñuy tuddee perfusion nga xam dangaa dem hôpital amaana dangaa xaw a jagadi wala da ngaa xaw a ñàkk kàttan ba defal la ko perfusion dafay taxaw taxawaayu lekk mun la ko defalee dafay yàq koor kon yooyu yëpp maytu nañ ko kon loolu def nañ ko jaamu yàlla moom duggagu ci maanaam woor nañ bàyyi nañ lekk bàyyi nañ naan bàyyi nañoo ànd ak suñu soxna bàyyi nañoo def lépp loo xam day yàq suñu koor ñaareel bi muy mu sawmul xaas sawmul xaas boo xoolee dafay tolloog taxawaay ci koor gi ñu njëkk a wax mooy ki nga xam ni dafay woor dana jàng alquran danga génne sarax dana def zikr dana jokk mbokk dana def lépp waaye nag moom léegi-léegi nag mbir yi léeg mu def ko ak ñàkk a teewlu am ci wala ñàkk a sellal am ci kooku nga xam ni boo tànnee ñi woor ñi ci ëpp daanaka ci kuréel boobu lañuy bokk danga gis si weeru koor jotee ñu ci bari ci ñun dañuy am beneen dogu bu bees beneen beneen beneen takkuwaay bu bees beneen jugaat bu bees da ngay gis ni dañuy danañu danañu fonk jàng alxuraan lool danañu fonk julli ci mbooloo lool danañu fonk nafila lool danañu fonk joxe lool waaye léeg-léegi mu am ay manqué manqué yoo xam ne daf ciy nekk kooku boo ci nekkee it baax na lool waaye da nga koo war a yokk nag bokk ci étape bu mujj bi ñuy bëgg a wax muy saw mu xusuusul xusuus mooy bi nga xam ne nag moom mooy xaasul xaas mooy lan kooku woor na bàyyi na lépp li yàq koor li nga xam ne da koy yàq xissiyan mooy li nga xam ne da koy def yëg ko nga xam ne lu mel ni lekk la wala naan la wala ànd ci sëy wala li koy yàq maanawiyan mooy li nga xam ni lekkoo naanoo ànduloog sa soxna defuloo dara waaye sa koor ga daanaka xiif ak mar la mooy lan yaa ngi woor mais sa bëccëgu koor gi yëpp daanaka ko ci carte nga koy passé mariage carte mariage yi ci nga koy def wala fu ñu la fekk yaa ngi toog ci deru nit wala yaangi dugg ci lu solo yon nekul wala yaangi ngi rambaaj wala yaangi jël sa temps bi diko passer ci lo xamni amalu la ndari ci sa walu yalla lolu bokay def xamal ni sa tiyabay koor yi mo li ñuy tuddé addu kalpe koor mi ngi lay mi ngi lay rocci mi ngi lay tafu di nangu sa tiyabay teyeguloko tamana sax yow la ngay def jappé wo ko lu garaaw lol waye fekk ni mo mi ngi nangu ci yow lu bari kon ñettel bi mom mucc na ci gor gor na ci waye da ci doli nag mom xol ba ak lamign ba sa su nek mom xol ba mi ngi tewlu yàlla mu ngoy baye xel fu man ti tol lamign bi daanaka du taxaw mi ngi def zikri fu man ti tol mo xam fay jàng alquran mo xam fay def azkar yi nga xam ni wax nañ ko suñu khutba bi passé wala dafa nek ko xamni dal mom mi ngi tok ci bërëb bo xamni dañ fay jàngé alcorane wala ñu fay jàngale xam-xam wala mu nekk bo xamni xam bu jaamu kay yàlla mom dal dana fexe ba góorgóorlu ba bëccëgu kooram du ci passé lenn ci tempsam ci loo xam ne du ci amee ak yàlla mi ngi noonu maanaam koo xam ni lépp lu muy def bëgg na cee amee ak yàlla mu ne loolu nag nit ki pour mu am ko dafay dajale juróom benn yi nga xam ni moo ko ciy dimbali bi ci njëkk mooy ghaddul basari wa fi mooy nga fexe ba fekk sa bët sàmm ko ci xool loo xam ni daganul ñu koy xool wala ci xool loo xam ni dañ koo sib ñu koy xool wala ci xool loo xam ni amalu la njëriñ ci àdduna fii wala am wala waaye sax amul la njariñ sa diggante ak sa borom ñaareel bi mooy sàmm sa lamiñ ci mboolem loo xam ne mbébante la mbébante mooy loo xam ni amul benn njariñ li wolof di wax naan amul bopp amul génn waaye it nga boole ci it sàmm ko it ci wax lu dul dëgg sàmm ko it ci jëw sàmm ko it ci rambaaj wala wax wax ju ñaaw wala bëcc ngal wala du xuloo wala di werante di passé sa temps bi ci loolu yooyu yëpp nga fexe ba góor góorgóorlu nga sàmm ko ci ñetteel bi mooy ni làmmiñ boo ko sàmmee ci loolu nag dangay fexe ba saxal ko nag ci muy def zikrullah maanaam mu baaxoo tudd yàlla loolu nekk soxlaam moom rek lay baaxoo ñetteel bi mooy fexe nga sàmm sa nopp ba doo ci dégg loo xam ni lu ñu warul dégg la bokk na ci loolu muy déglu jëw jëw ki koy def ak ki toog di ko déglu ñoom ñaar ñoo yem ndax bu fekkoon ni kii jëw amul ku koy déglu du jëw nit dangay gis kenn koo xam ne day ñëw ci air bi nii rek di wax nii rek te waxul ak kenn di jëw nit amul faaw buy wax am koo xam ne day day da koy ñëw di ko nettali kooku nag am na ñaari anam yoo xam ne mën nañ ko koo arrêté lool benn bi nga ni ko noppil comme ni kenn yonent bi sallallahu waxee ci xadis ne bu fekkee kenn ci yéen woor na bu mu bu mu bu mu mbeej anam bu mu wax wax yoo xam ne amul njëriñ bu mu def loo xam ne ak mbébante bu mu dugg ci yoonam nekkul nee bu fekkee nit ñëw na sax ba naroo jot ak yow na nga ko wax ne damaa woo waaye noonu it bu fekkee nit nit ñëw na it nar a nekk ci deru jàmbur ci yow nga ko sëñ bi dimbali ma rek sama koor gi bëgg ko versel kenn mooy ni jëw nga xam da koy jëw moom ka jëw yaa ngi jël sa tuyaaba ko jox te yëguloo ko wala bu fekkee ni amaana ruus nga ko mënoo ko wax loolu nga noppi ndax jun ñu doy na borom xel nit bu fekkee ne day wax ak yow ci nit nga noppi rek dana naa ah, amaana na kii kat lii ma koy wax kat bëgg koo dégg loolu mën na cee jaara noppi kon nga xam ni kon déglu ko ak di ko wax ñoom ñaar ñoo bokk atte ñeenteel bi mooy sa mboolem cër yi nga sàmm leen ci loo xam ni warul nekk bokk na ci loolu loxo bi bu mu jël lu mu moomul loxo bi bu mu jël lu mu moom buñ ko waxee lu mel ni lu mel ni sàcc bu mu ko def dégg nga bu mu it laal loo xam ni it waru koo laal waaye nga sàmm sa biir bi it fexe ba di ci dugal loo xam ne lu dagan la lu la lu la la ndax kat mbokk yi dara gënul doy waar fajar nga arrêté lekk arrêté naan nga xam ne ñaar yooyu dalaa dagan lekk ak naan dafa dagan ci yow waaye nga dem ba dog du jot ngay dogee loo xam ne dafa xaraam mooy dogee riba wala dogee alalu jàmbur wala dogee loo xam ne ay xàq la yoo xam ni danga koo dajale mu nekk ay alalu nit yoo xam ne ñu ngi topp sa ginnaaw di daw nga war leen koo jox joxu leen ko nga dogee loolu loolu moom doy waat bi maanaam yow mm, tënk nga sa bopp tere nga sa bopp bañ a lekk bañ a naan ñaar yi nga xam ne dalaa daganoon ba guddi jot waaye bu guddi jotee nag nga ne bu ma koy tàmbaliwaat nag dama koy tàmbali ak loo xam dafa xaraam kon ñu maytu lool juróomeel bi mooy mu bañ bu dog jotee bañ a bokk ci ñi nga xam ni dañaa heure dog jot na dañ naan li ñu li leen rawoon ci bëccëg bi yëpp dañ koy dabaatal maanaam ña ngi la sant moom bu dog jotee bëgg na fay lekk mburu bëgg na fay naan fonde bëgg na fay naan soow yooyu yëpp bëgg na koo defaat nga gis ni daanaka bu dogee balaa trente minutes biir bi dafay fees ba nga xam ni moom dootul man dara ndax kat yaram bi biir bu feesee rek li ci li muy jur mooy taayal léegi nag bu tayal amee nag moom xalaata dem jàkka ji def tarawih moom doo ko def dem julli ji dem la doo ko def léeg-léeg sax tam bakkan foofu mooy ñëw dalaa nga ah da nga da ngaa xaw a sonn tëddal tuuti rek benn dix minutes wala wala vingt minutes après nga doog dem jug dem jàkka ja ba moytu boo tëddee vingt trois heures nga nar yow boobu yoolu mbooloo mi rëcc na la waaye nag fexeel ba wala yoolu mbooloo mi rëccee tarawih gi naafila guddi gi moom rëccagula fexeel nag nga góorgóorlu ci guddi googu nga def ko bu fekkee ni daanoo dem jàkka ja bu biir bi feesee bu moytuwul yàgg sa njaboot sax du ngeen ko def bu moytuwul li ngeen a mujjee mooy dem taal télévision ba jàkkaarloog émission yi nga xam ni at ba at lay am muy weeru koor bu ko defee bu jotee télé bu ne andi benn programme daal di koy teg nag ku nekk ne ak ku ne ak na koy tuddee bu ko nag bu moytuwul nga mujj see passé sa temps yëpp bu defee koor guddi gi nag daal lay ndax koor guddi dafa am kooru bëccëg am kooru bëccëg gi mooy bàyyi lekk bàyyi naan andi koog zikar andi koog nafila waaye guddi gi bu jotee it dafa am lu ñuy tuddee xiyaam muy taxaw la guddi naafila guddi goo waxoon nañ ni bokk na te lay dimbali nga def ko muy dem taxawee taraweex wala bu dul loolu nga jàng alquran boo defee kon kóoru guddi gi yoor googu daf lay rëcc juróom-benneel bi mooy ginnaaw ba nga xamee ni dog na léegi nag mu ngi mu ngi mi ngi càmbar boppam nag day nekk baynal xëf day nekk diggante ragal naan ah est ce que man yàlla nangu na sama koor gi est ce que amul lu ma def ci bëccëg gi loo xam day yàq sama koor gi te yëguma ko ay léeg-léeg beneen xel mi naan ah yàlla de ku bëri yaat yéen mën de la am yaakaar ne ah yàlla da nee na boo wooree boo ko wooralee benn bis da dana la sorel ci diggante ay eh, safara nangam ay nangami ay nangami kilomètre wala nee na bu fekkee ni woor nga koor gi dafay nekk kiiraay sa diggante ak safara yooyu mu wax ci ci ci ay xadiis ak alquran mu ne bu fekkee ni nit dafa woor bu ëllëgee koor gi dafay nekk loo xam ne daf koy ramm wala mu ne bu fekkee ni woor na koor gi dafay raxas ay bakkaaram ba mu set ñaar yooyu lay nekk du naagu ne nanguwuñ koor gi waaye it du naagu it ne nangu nañ koor gi bu ko defee ñaar yooyu bu ci nekkee moo koy mën a dimbali moo koy tënk mu sax ci ak jaamu yàlla ndax bu fekkee ne da ngaa ragal ba jàpp ne nanguwuñ koor gi daal danay yokk ak góorgóorlu nga doguwaat nga yaakaar it yaakaar googu dafay nekk loo xam daf lay encouragé nga ne ah li ma nekkoon kat mooy yoon bu baax bi kon mbokk yi ñaari ñaari laaj yooyu moo am bu ci mooy ndax yow da nga bokk ci ñi nga xam ni dañuy woor ngir ñàkk pexe jël koor gi def ko ak coono bu fekkee ne loolu la xamal ni yiwu koor rëcc na la wala ñaareel bi ndax yow da nga bokk ci nga xam dañuy woor waaye wooru aada la ñuy def mooy koor gi dañ koo santaane maa ngi koy def waaye jublu ma ci jaamu yàlla ñëpp koy def rek maa ngi ci kooku it boo koy def it xamal ni yiw ga nga ci am bariwul ñetteel bi nag bu fekkee ni def nga ko mooy bu baax bi mooy koor gi amee nga ca ak ragal yàlla kooku mooy ñetti koor yi bu fekkee yeneen ñetti laay mooy ñaata ban taxawaay ci taxawaay yi nga bokk ndax da bokk ci ñi nga xam ni seen taxawaay ci koor mooy bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy waaye ñoom leneen li nga xam ne ay ibadat ay jaam yàlla seen yoon new ci bu fekkee da koo def xamal ni loolu taxawaay boobu du la jural benn njëriñ ci ay yiw fekkee ni yaa ngi am taxawaayu di woor di def ibadaat di julli di saraxe di jàng alquran yaa ngi koy def waaye nag moom dafa am loo xam daf cee manqué muy dañ cee dañ cee dese yëg sa borom boo koy def yiw gi bari na waaye am na xam ne manqué na la bu fekkee ne ñetteel bi nag moom mooy ni yow nag moom yaa ngi woor waaye cër yeeg xol beeg làmmiñ yi ñoom dañoo bokk woor waaye yemuñ ci dañoo bokk ci ñi nga xam ni dañuy def seen jaamu yàlla façon jaamu yàlla ku ci nekk na bu fekkee ne boobu ci nga bokk nag xamal yaa ngi bokk ci nga xam dañoo texe يلا يلا بولا دفعني لول جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك شرا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله